lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. mbokki lu xew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw moo ñëw di waxtaan a yéen tey ci dogalu suñu borom subhanahu wa taala bi ñëw wàcc ci kaw jullit ñi rawatina ñi bëgg Serigne Touba rawatina njabootu Cheikh Béthio Thioune ñi nga xam ni ñu tuddee seen bopp ay cantakku ñu ñaanal Cheikh Béthio Thioune yàlla su borom. wane la ko fa soppeem ba di Serigne Saliou Mbacke tey ñaar nit yàlla su boroom xare ko àjjana nekk koo xamante ni nag tey yoonu murit ñoo ñàkk ndax Cheikh Béthio jëmm la joo xamante ni li Sëñ baa doon ñaan yàlla suñu boroom te ñaan googu Sëñ Tuubaa doon ko ñaan ñaan googu Cheikh Béthio da caa dugg muy waq di xawaa ijil lazina daamu fi xidmati wa xëblahum maaraamu yàlla na nga defal fajo aajo ñi nga xam ne dañoo sax dàkk di ma liggéeyal man Serigne Touba te ku ne xam na ne Cheikh Béthio liggéeyal na Serigne Touba ba tëdd sax ci lalu lalu hôpitalam yëkkati un million teralee ko Saliou Samb ci waxtaani Serigne Touba Cheikh Béthio tëdd na ci lalu hôpitalam jël oto teralee ko Tawfekh Mbaye te lépp ngir jëm ñi Serigne tubaal la ko jox ndax kenn ki waxtaankatu Serigne Touba la kenn ki day jàng xasida Serigne Touba yi ak di tagg Serigne Saliou Mbacké kon nga xam ne moom dundam yépp ci jaamu yàlla la ko jeexal 1946 ba mu gisanteeg Serigne Saliou Mbacké sangam nga nga xam ne seen ndaje booba nekkul loo xamante ni ak neen kese la déedéet waaye nit yàlla bu ne yàlla dana buñ ko booleel. waaye seen ànd yàgg na lool waaye lu mus a am ci àddina xam ni Cheikh Béthio benn xol la am kenn la ci bëgg te mooy Serigne Saliou Mbacké loolu àdduna sépp maas nañ seedeel ko waaye bëgg gi mu bëggoon Serigne Saliou Mbacké dakaa yóbbu woon ci moom Cheikh Béthio ba ku mu xam ni bëgg na Serigne Saliou Mbacké mu bëgg la te loolu lu ku ne war a jàngatee la ci moom bëgg gi bëggoon Serigne Saliou Mbacké yóbbu woon na ko ci ku bëgg Serigne Saliou moom mu bëgg la waaye. ku jubluwul sax Serigne Saliou mu maandu ci yow ndax moom benn itte la amoon mooy Serigne Saliou Mbacké dundam it mu jëf ci loo xam ni ku ne war naa rafet njort ci Cheikh Béthio Thioune Cheikh Béthio Thioune ñaata junni nit la fexe ba lu ëpp junni béy ci Serigne Touba fanaan seeni dënn Cheikh Béthio Thioune ñaata junni nit la fexe ba lu ëpp junni béy ci Serigne fanaan seeni dënn nga xam ne kuy taalibu Cheikh Béthio bari na ci góor ñi bari na ci jigéen ñi sas wi dañ koy mokkal te sas wu ne dana ëpp junniy bayit ñu def ko seenu dënn ci góor ak ci jigéen nga xam ne bokk na ci liggéey bu mu liggéey Sëñ Tuubaa ci xaside yi ci moom lan miinee kuy taxaw di tari maraaxi kuy taxaw di tari Taysiir ku taxaw di tari Mafaatihul Bichri xaside yu mag yu Sëñ Tuubaa yooyu mu fexe ba ay intellectuel nga xam loolu la lu kenn miinul woon la ci jamono nga xam ne ñu nekkoon ci daara yi di jàng alxuraan ñoo daan man xaside yi waaye Cheikh Béthio dem ci université yi université yi gën a mag ci Sénégal ak bitim réew Cheikh Béthio ci école yu Sénégal yi intellectuels yi ñi nga xam ni tubaab yi jàppoon nañ ni ñoo ña nga seenu moomeel maîtriser nañ leen Cheikh Béthio Thioune wan na leen ni nit mën naa jàng tubaab toog ci bërëb yi gën a rëy. fa ñu jëlee décision ci tubaab te loola du yàq ak taalibeem mooy fekk ab ingénieur fexe ba mu mokkal xasida Sëñ Tuubaa fekk ab ingénieur fexe ba xamloo ko lan mooy yoonu murit muy jëf ndax Cheikh Rafal ne woon na féetewoo wax ji ma féetewoo jëf ji ba keroog yàlla fay wax di bàyyi jëf Cheikh Béthio fexe ba ndaw ñi ndaw ñi di jëfal Sëriñ Tuubaa ci barab yoo xam ne kenn foogewoon ko ak ci dëkk yoo xamante ni kenn foogewu ko fa. Cheikh Béthio dem fa yóbbu fa turu Serigne Touba ak liggéeyu Serigne Touba ñaata nasaraan la dugal ci lislaam ak ci yoonu murid nga xam ni jëf jooju rek buñ ci sukkandiku woon war a rafet njort nit ku ne ci moom ni yàlla dana ko wane ak waaye Cheikh Béthio ku ne xam na ne xel kom miis na jëmmam ndax ba muy ànd ak Serigne Saliou Mbacké booba jamono ci saa ñu bari mënoon naax wax ni xamuñu Serigne Saliou waaye Serigne Saliou Mbacke daan na toog dara nekk ci am xelam ndax Serigne Saliou lu mu sënee ci xelam rek mooy jàmmi jàmmi yàlla yi ndongo yi seenu dundin waaye lu mu a xalaat ci seenu dundin rek bu ko xalaatee Cheikh Mbacke da koy indi ca kanamam ci saasi nga xam ni loolu boo def sa yàlla suñu borom la subhanahu wa taala dem ba ndongo tarbiya Serigne Saliou Mbacke yi. am xemmemteef bu rëy ci Cheikh Béthio Thioune ndax ba muy ànd ak ñoom ba mu leen di taxawu nga xam ne dem na ba bis kenn ku ne déglu na 1987 li Serigne Saliou Mbacké wax ci moom ànd ngeen ànd ak Cheikh loolu lu moo ko gën a neex ci àddina amut te ànd gi ngeen ànd ak moom di ngeen ci am ngërëmal Sëñ Tuubaa kon loola day firnde ni Cheikh Béthio dundam yëpp ci jàmm yàlla ak def lu baax def santaane suñu borom ak bàyyi tereem ci la ko ñëpp xamal nga xam ni tey Jannatul Mahwa am na jumaa joo xam ne taxawal na ko mbokki taalibeem te jumaa ja la ci dem ëpp nay milliards te ci yoonu suñu borom subhanahu wa taala la ko def ñaata nit la Seex Béthio dimbali fexe ba ñu dem bitim réew yor seenu njaboot tey jii di suturawu kon tey bu ko yàlla fayee njaboot yi nga xamante ni moom Seex Béthio Thioune fexe na ba jël ci ñaar wala ñett yóbbu bitim réew ñoo ña tey yor seeni waajur yu góor a gi jigéen ak seeni rakk di di leen dundal. loolu bu ko yàlla fay fu mu jëm ëllëg Cheikh Béthio Thioune bu ko suñu borom fayee ku mu am dëkk mu yëg ko Cheikh Béthio jël aw nag yónneef ku musa sa am bëgg soxna Cheikh Béthio fexe ba may la ko boole la loo xam ne dana la ko jàppalee xoolal Madinatu Salaam gi nga xam ni moom jaam yàlla ñoo yor ñoo ñor Cheikh Béthio tabax ay kër defaru dëkk jox say taalibe ni kaa leen dëkk ak man wéttalu ko ak man xasida Sëñ Tuubaa di jolli alxuraan karim di fa jolli ci loolee la nekk moom Cheikh Béthio ba fekk sangam mu tedd ba Sëriñ Saliou Mbacke waaye weeru koor wii Cheikh Béthio génn àddina ku ne xam ne yàlla immi na buntu na yépp kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala yàlla boo ko cat jiitu ci biir bàmmeel waaye nit ku baax dem na tey màggal Tuubaa que ca ëppoon positif mën nañ koo wax ndax li mu doon ci màggal gi sa bët di ca tege xam ne ni kenn jëful lu toll moom waaye tey jii màggal Tuubaa dana ko fay waaye tey jii kenn ku ne xam na ni xaru tabaski yi dana ko fay ku ne xam na ni muur koor yi mu doon génne ci korite yi di ko jàppale jaamu yàlla yi te loolu suñu dana ko fay dundam yépp ci lu baax rek la ko def kon kooku mooy Cheikh Béthio Thioune yàlla nañu yàlla taas ci barkeem wa ma zalika ala assalaamu aleykum wa